asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu leen ziar tey nag euh, yaakaar naa ne ki mu ñëw toogalati tamit tàmm ngeen ko ci làmb di ko gis ñuy toog ak moom parce que li koy waral mooy dafa nekk acteur buy liggéey ci làmb rawatina nag làmbi simple yàlla dogal biñ fi mujj a ñëw waxtaanoon nañ ak moom ci lu jëm ci làmb tey nag fi ñu jëmaat ak moom ci waxtaanu làmb mooy saison bi moom moo war a ubbiwaat mois d'octobre moom saison boobu ubbi nag mu bokk ci promoteur yi nga xam ne war nañ ci njëkk a tëgg làmb rawatina làmb simple yi nga xam ne sénégalais yi xam nañ ko ko muy jags 3 millions mu teg ko fi nga xam ne moom mooy ca Iba Mar Diop le 3 octobre lay doon incha allahu rabbi mu mel ni ki léegi mu yegg si tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom waaye tamit am na lenn loo xam ne dañ ci dugg ak moom ci loo xam ne ay quelques wax yu ñu dégg fan yi la ci combat boo xam ne ficelal na ko te ñun dañoo bëgg lépp di leer waaye tamit ku ko dégg rek xam ne lii moom wax ji su mën a dégg la nga mën koo yóbbaale Jax maa lay nuyuwaat di la ziaraat. lay fay bu baax a baax Babacar di. ba am nga jàmm sa équipe bi nga àndal waaw am jàmm sant uh-huh. sant yàlla bu baax a baax. naka uh, dëkk beeg taw bi. Ah, bari rek taw moo baax ñëwoon nañ fii di jooy taw bi nga fi mujjee. waaw ma jaaxle lool man man jaaxle woon naa de waxtaan wax dëgg ci man jaaxle woon naa lool. mais nag gis nga suñu borom jël jala jalla jalaaluhu uh-huh. moom moom lépp mën lépp nu ko neex la koy defee fu ko neexee na mu ko neexee ni mu ko nu mu ko bëggee macha allah mu ngi taw bu baax gars yi béy nañu affaire yaa ngi sax yàlla na egg ci jàmm ñu mun a lekk yu bees takk waaw ñëpp am jàmm waaw. am na solo defe naa tamit faw ma jaale la kilifaay làmb yi nga xam ne jóge nañ fi nekkoon ay icône bokk na ci mbay gi bi biñ fi mujj a toog loolu amagul ak duubalees te ku ne ah, Jax yaakaar naa xaleb dakaar nga loolu la yàlla dogal. te xaleb dakaar faw mu xam mbay Guèye yaa ngi dégg faw mu xam it Double ñaar ñooñu laa lay jàlle di la laaj loo may wax si ñaar yi icône yooyu nga xam ni génn nañ fi bu yàggul àddina yàlla na leen yàlla jégal te xare leen aljana ak ñi faatu ci làmb yëpp ñi xam ak ñi ñi xamul ñooñu ñëpp ñu jaal ko waa senegal et puis Mbaye moom comme ni nga ko waxee man xale dakaar la juddoo fu ñuy wax ca cëddeem ci lalu urus boo nee ca dém ni ay këru lébu boo ne këru lébu am na kër gu ñu daan wax ndooyeen mooy suñu kër ñun amoon mbengeen amoon njaayeen boo déggee maam góor gi njaay buy bàkk naan euh, Assane Njaay gom ndooy Elie Elie xaw ma nakati kooku waa yàq jëf la woon ñooñu ñoo ko daan encadré gom ndooy boobu mu di ak El Hadj Assane Ndiaye ñoom dañ ils étaient inséparables alaaji Assane Ndiaye alaaji Gomdoy doom benn doom bu góor la am alaaji Assane Ndiaye la ko tudde alaaji Assane Ndiaye mooy magu pàppay maam góor gi Ndiaye alaaji Gomdoy mooy magu Suley Ndooy bi daanoon falan moo tax buy bàkk dem di leen di leen di lim maam góor gi Ndiaye te ku ne maam góor gi ne mbay Guèye ak ñeneen ak ñeneen donc ñun bi ñu nekkee xale loolu moo fi nekkoon dakaar Double Less jóge Casamance ñëw nekk côté Fass defe naa aussi waaw dëkkoon kër ñoom béygee ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu si Fass lañ nekkoon ay ak ak ancienne gloire yu bari donc bu ñu dundee tey ba lii ñëw sant yàlla sant yàlla bu baax a baax ndax euh, Double Less mbéygee ñoom ñëpp dox nañ seen dox dund ay jéego yu ay année yu baree baree bari gis lu bari former ay nit ñi du euh, mbay euh, Double Less gis nga doom yi macha allah ak waaw mbay Guèye gis nga ñoom Moustapha Guèye ak ñooñu ñëpp macha allah donc àdduna noonu rek la mën a demee voilà ku ci nekk rek dafa am yoon boo waroon jaar rek ba egg yàlla na leen fa ñu dem gënal fii ñu jóge yàlla xare leen na ndax bégal nañ Sénégal ci ay jamono euh, façon bu nekk macha allah waaw. parce que tey dama da da souvent damay faral di dégg ci sa ay wax nga koy wax ci wax li nga xam ne ni moom mooy li nga gis tey ku mel ni Double Less moom ku mel ni Mbaye Guèye waaye ku mel ni Less bu ñu lay wax ne dem na ay Jeux olympiques ñetti yoon dem na ay Moscou dem na ah ay dëkk yu baree baree bari maanaam nekk na tamit champion d'Afrique ñooñu est-ce que tamit jotul tey état du Sénégal genre yooyu nga xam ne dañuy défendre couleur nationale ak ci côté bu ñu ko mën a défendre ñu di leen di taxaw taxawaay bi nga xam ne moom moom moo war bu ñuy dund donte am nañ njaboot gu leen taxaw. Ah, xam nga yaa ngi may dugalaat ci affaire état man samay wax da ngay waaru xam nga man affaire état bugguma trop di ci wax parce que fa ñuy jaar ak man li ma gis du benn donc xam nga toujours dañ naan day sànni xeer day sànni xeer donc mu tax affaire état bugguma ci wax trop daal. mais dama yaakaar ne rek euh, ay icône ay nit yoo xam ne rendre nañ Sénégal hommage ci façon bu nekk euh, pas Double Less bi nga doon wax noonu fu ne la dem parce que ñoom dañ daan bu Jeux olympiques jigee ñu ñu ñu recrute ñu jël ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw yóbbu leen forme leen quelque temps rek ñu dem ay gréco ak bëre ji ko mais daawuñu ko sax farataal ñoom mais te bu ñu demee dañ fay jël ndam parce que c'était des vrais sportifs temps yooyu nit yi dañu seen dund d sain alors ñooñ buñ demee ba mu mag parce que doomu aadama gis nga juróom fukki at boo ko xasee ba am faju rek fi des ak koo munti doon si àdduna nag moo xam feeñ na ci yow moo xam feeñul ci biti faju rek bu teyee lii metti nga faj wala géla la metti nga faj wala nga feebar faj parce que nit la yàlla bindee noonu yàlla noonu la bindee nit ak lépp sax d'ailleurs am na at yoo xam ne boo ko si am say cellule maanaam lu yor sa yaram di dee day wàcc boo nekkee xale am doole lu ñëw nga dékku ko sa yoon nekku ci da nga koy fël jaar ne fekk loolu ngay fël di jàll mu ngi am lu muy yàq ci biir mais doole yi ko téye bloqué ko feeñul. boo nee ba jëm mag nag cinquante ans jëm kaw loo gën a dem rek ay affaire di génn ay affaire di génn ngay faj di tëb di faj di jóg di faj di jóg donc état bi euh, même bu leen dimbaliwul ci xaalis waroon na leen mën a dimbal ci encadrement ba ñu mën a faju parce que boo gisee lii fi am tey man rafetewuma ko wax fa dëgg yàlla ay nit yu rendre service Sénégal tëdd ci ay lal boo gisee Mohamed Ali barka démb ñu wane tànkam yi dafa ñaaw quoi dafa ak Pape joob Boston ñoom ñëpp amul ku ci ma ne amul koo ci compter ak ñi nga compter am na ñoo xam ne ñu ngi toog fi ñu toog wanewuñu souffre di souffrance seen souffrance nekkoon ay sportif nekkoon ay leneen ay leneen rendre Sénégal même bu dee benn fan li leen faj jafewul état wax fa dëgg yàlla par exemple crédit mutuel bi mënoon nañ leen si dugal ñoom ñëpp xam nga li ma la dafa leen un régime prioritaire bu faju jotee ñu dem faju bien que am na fi ay plan Sésame am na yooyu yëpp mais ñu grand sportif yi ñu beral leen loxo parce que dañu rendre service Sénégal moo gën xam na ñoo xam ne ne takkal médaille ay tableau d'honneur ay affaire médaille d'honneur ak yooyu faj leen moo gën am voilà donc loolu ku nekk fin wu dundam gis nga ne mujje metti faju faju faju faju ba yàlla jël na mais nag munoon na gën a oyof ci ñoom waaw bien que euh, Double Less am na ay doomam yu ko jàppale ñu ngi doon def li ci war mais rôle état daf ci war a dugal loxo ak ñeneen ak ñoom Mbaye Guèye ak ñii ñëpp Mbaye Guèye façon kilifa bu nekk jàppale na ko ba gis nga ni mu mujjee ku nekk ñun ñëpp xamuñu suñu fin fan la xamuñu naka la boo gisee dëkku moderne yi ñuy wut ay assurance loolu moo ko indi boo demee Amérique nga dem France France sax moo tane parce que France système am dafa am système boo am day couverture moo fa am dëggantaan France yemul ak fenn ci monde bi ci côté boobu lu yëngu ñu faj la lu yëngu ñu faj la ñoo fi mën ci monde bi Amérique da ngay jënd ay assurance bu di fay assurance bu dara amee assurance boobu ñëw couvrir à soixante quinze wala quatre vingt pour cent Amérique noonu la ñuy doxee ñoom xam ko businessman la xaalis ak mais France yamula fenn ci monde bi te ñun France dañuy copier mënoon nañ copier loolu comme il faut du dëgg tey boo xoolee maa ngi doon déglu sànq rek benn reportage ci libi ñuy wax Kadhafi ba mu fi nekkee pétrole kese pétrole bi Libye am ñëpp xam ko kenn du fay impo libien kenn du fay ndox kenn du fay courant boo takkee jabar ñu jox la appartement yaay choisir de villa wala appartement bu dee étudiant nga boo amee bac bëgg a jàng ji ñoo lay jox bourse boo ñibbisee ak sa diplôme amoo liggéey salaire ingénieur bu dee ingénieur nga salaire ingénieur lañuy fay ba ngay am liggéey loolu ban dëkk la am ci monde bi amul fen ci monde bi fu dul libi. tey de sànkal nañ ñu fi moom. ah ñu rey ko tam ko dëmm kenn benn africain yëngatuwul. te bëggoon Afrique doon benn la. doo ma dim waxuma Afrique doon benn dama ne modèle bi mu daan prôné. waaye tey animu lancé na compte bi ñuy laal fii lu ñu fi jël déggoo ñu naan vingt milliards ci palais bi Alpha Condé la xaw ma ak ñeneen ak ñeneen Mobutu bi muy dem plus de trois mille milliards c'est c'est c'est ko africain yi daal ma doo comprendre alors que ce Kadhafi la bi ñu doon wax ne terroriste la alalu pétrole bi daf ko delloo ci askan bi li ci desati ñun amuñu pétrole amuñu gaas amuñu géej goo xam ne kenn xam fu mu toll ak leneen ak leneen ak leneen lan lañ fi def ñu ngi fay courant muy gën tar di fay ndox muy gën tar ak leneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kenn mënu ko lim daal nañ bàyyi état bi daal ci état nañ dugg suñu làmb te bàyyi. solo macha allah ah loolu doy lool doy na waar Xaddaafi ndeysaan ah doy na waar daal ay mbiram waaye xam nga ne loolu ku ko taxawu sab dëkk jar ngaa ñaanal jar ngaa sàmm waaye nag des fois tubaab yi pour man dañ ñuy influencer ba dugal ñu ci loo xam ne nii ñuy rayante suñu biir ñoom ñu profité ci loolu pour man tibb suñu ay ressources yóbbu seen dëkk dunde man de pour man loolu laa gise noonu. tubaab loolu rek def nit ku weex janu yóbbu rek France dëkk bu ndaw la ci Europe ay colonie moo tax mu mel ni mel jël ay territoire jàmbur coloniser leen ne rek téye bañ ba moo tax France am li mu am